sallallahu alayhi wa sallam barke Seexu Canaba nuyoo boobu ñu ngi ciy jëkke sunu wayjur bàyyi Serigne Abdourahim Seck di xalif généralu Tijaani Canaba ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko xilaafa gi jëkk ci aw fan yàlla na ko xilaafa gi jëkk ci wér yàlla na ko xilaafa gi jëkk ci wërsëg yàlla na ko xilaafa gi jik ci jàmm ci jàmm yàlla na ko xilaafa gi jik yàlla na ko xilaafa gi jik ci barke ci barke yàlla na ko xilaafa gi jik yàlla na ko xilaafa gi jik ci bennoo ci bennoo yàlla na ko xilaafa gi jik yàlla na ko xilaafa gi jik ci ijaaba ci ijaaba yàlla na ko xilaafa gi jik yàlla na ko xilaafa gi jik ci fajuk aajo ci fajuk aajo moom mboolem lu aju ci tariqa bi moom mboolem lu aju ci tariqa bi ak mboolem julli ci zaahir ak ci baatin jël gi mu jël xalifa bi jël gi mu jël xalifa bi yàlla na lépp yal nay jàmmi canaba. yal nay jàmmi canaba. ci zaahir ak ci baatin faw faw bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. waaye yal nay jàmm ci réew mi. waaye yal nay jàmm ci réew mi. waaye yal nay jàmm ci àdduna waaye yal nay jàmm ci àdduna bépp. yàlla mën na ko sañ na ko sañ na ko. yàlla na ko def yàlla def. Eh, ginnaaw loolu. nee na gannaaw loolu. ñu ngi nuyu sunu wayjur wi. di rakkam di rakkam. Baye Assane Seck. di ko ziyaara ni ñu ziara Baye Abdourahim di nuyoo noonu Baye Modou Fall ñaax di ko ziara noonu yi ñaan gi nu ñaanal Baye Abdou ñu boole leen ko ñoom mu wàcc ci sunu kaw mu wàcc ci sunu kaw ñun ñi di seeni njaboot ñun ñi nga xam ne ñooy sunu seen njaboot ak mbooleem ak jullit Baye Abdou tey li ñu indi tey daal li ñu indi mooy li ñu daan indi mooy li ñu daan indi rek dara musta suppeeku dara musta suppeeku lenn rek a fi nekk. lenn dong nga fi nekk. mooy yàlla. mooy yàlla. ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. li wér te wóor. li wér te wóor. jotaayam bii tey. jotaayam bii tey. ku ko ni woon. ku ko ni woon. nekkal jotaay bi. nekkal jotaay bi. ak lépp loo mën di am. ak lépp loo mën di am. kenn doonal yàlla. kenn doonal yàlla. ak yonent bi sallallahu alayhi wa ak yonent bi sallallahu alayhi wa ak seexu canaba. ak seexu canaba. génn ci génn ci. mu bama, mu bama. max la. ku ko waat waaj ku ko waatit di nga waaj kon sunu alal nun du lenn kon sunu alal daal du lenn lu dul diine ji lu dul diine ji nga nekkoon ci nag. ak say mag ak say mag. nekkoon ci nekkoon ci. ak say baay ak say baay. nekkoon ci nekkoon ci. ak sa maam yi nga xam ne ak sa maam yi nga xam ne. mu suñu fee jóg musuñu fee jóg. ndax ñoom ngeen mu sa teg bët. ndax ñoom ngeen mus a teg bët. ba tey jëmm yàlla ji ba ba tey jëmm yàlla ji. rafetal rafetal ci say wayjur ci say wayjur rafetal rafetal ci say mag ci say mag rafetal rafetal ci say doom ci say doom ñun ñii ñëpp ñun ñii ñëpp nga meññunu nga meññunu ni nu suñuy waajur meññ ni nu suñuy waajur meññ ci lu amul sikk ci lu amul sikk euh, koo ci musa dajal koo ci musa dajal a feeñ a feeñ li may wax nag li may wax nag ñi fi toog ñëpp ñi fi toog ñëpp mën nañ koo seede mën nañ koo seede ba ci sëñ Modou mii ba ci sëñ Modou mii bi nu toogee léegi kaf nga moom ree nga moom ree looloo mos ndax teewe naa ko lu dul benn du ñaar dina la làkk séeréer dina la làkk séeréer dina la làkk pël dina sax dina la ko anglais sax dina la ko même anglais dina la ko làkk dina téye sa loxo yi dina ci boor bu ne ba boo yàkkamtee sax ba boo yàkkamtee sax ngaa fipp mën ngaa fipp loolu lu ko mooy ne ci xolam ak bëggeel gi ak bëggeel gi ba tax muy napp nappal ba tax ba mu koy def te ba mu koy def suñuy waajur ngi fi ñun ñëpp biñ melee ni nekkuñu te juguñu fi nag la ko gën a la ko yokk la ko yokk kenn ci ñun kenn ci ñun ku ci amoon moom xaar ma yàlla amul man de xaw ko te wax naa ko wax naa ko lu jiitu lii lu jiitu lii ci biir koor gi ci biir koor gi ci kanamu sëñ Ibrahima ci kanamu sëñ Ibrahima moom mu seedewaat moom mu seedewaat kon bu yàlla dogalee nag bu yàlla dogalee li nu amul lu dul moom muy donoy diine ji ko ñu ko doon donnante ñu koy donnante ci say maam ci say baay ci say baay ci say mag ba yàlla xëy tey ba yàlla xëy tey ngay seexu canaba ngay seexu canaba te seesub seexu canaba seexu canaba ba xeebu nu benn sées xeebu nu benn sées waaye moog melaw séesu yonent bi waaye moog melaw séesu yonent bi mënoo leen a xàmmee mënoo leen a xàmmee ndax benn sées rek ndax benn sées la ndax diine joo xam ni ndax diine joo xam ni sees ba la ko jox sees ba la ko jox ba ngi ci toog ba nga cay toog diine ja la ko jox diine ja la ko jox bal la woon bal la woon ak jaasi ak jaasi ngir lan ngir lan kenn du ni laa ilaha illallah kenn du fi tudd laa ilaha illallah muhammadu rasulullah muhammadu rasulullah kenn du julli ci yonente kenn du julli ci yonente kenn du jàng alxuraan kenn du jàng alxuraan nga yow nga geddoon sa lépp yow nga geddoon sa lépp ni bala maa amati jàmm ni man bala maa amati jàmm lii dafa sax lii dafa sax ndax doonuma lu dul moom ndax doonuma lu dul moom ndono loolu wér na ndono loolu wér na ndono loolu dëgg la ndono loolu dëgg la zahir ci zahir ak ci baati ak ci baati kon chef bi nga kon daal chef bi nga toog mën naa nu roog chef bu ne mën naa nu roog chef bu ne bu dul yonent bi rek bu dul yonent bi rek bokkulewu leen bokkulewu leen yàlla na la jik yàlla na la jik loola nag loola nag la sëñ Canaba Ibrahima Seck waxoon la sëñ Canaba Ibrahima Seck waxoon di sunu wayju di sunu wayju te ngeen nettali ñu ko te ngeen nettali ñu ko ndax fekke wunu ko ndax fekke wunu ko nee ngeen nee ngeen ba mu tolloo ba mu tolloo ci waaj dellu ci borom ci waaj dellu ca borom da leen a woo yéen ñëpp da leen a woo yéen ñëpp ngeen toog ngeen toog mu ni leen mu ni leen ñaar fukki at ñaar fukki at ak juróom ñaar ak juróom ñaar ak ñeenti weer ak ñeenti weer ku ci yor sa alal ku ci yor sa alal di def di dindi di def di bu la ca bëggalee bu la ca bëggalee tooñ na waaye ay gor ngeen waaye ay gor ngeen di ay jullit di ay jullit musu leen ma ni déet musu leen ma ni déet musu leen ma ni waaw musu leen ma ni waaw lu ma musa def rek lu ma musa def rek ànd ngeen ci ànd ngeen ci neex na leen neex na leen bàyyi Cheikh Tidiane mi nga doon nag bàyyi Cheikh Tidiane mi nga doon mu doon noon ñooñu mu doon noon ñooñu kàddu googu kàddu googa lim ko répété lim ko répété ci biir dundam ci biir dundam kenn xamul nu mu kenn xamul nu mu toll waxtu wu toogee rek waxtu wu toogee nee na maa ngi jéggulu ñëpp nee na maa ngi jéggulu ñëpp topp ma kenn dara topp ma kenn dara waaye di jéggal ñëpp waaye di jéggal ñëpp fu mu nu joxe kàddu yi fu mu nu joxe kàddu yi ci biir néegam ci biir néegam loola la ñuy sax loolu la ñuy sax daanaka mooy ay kàddu daanaka mooy kàddu lu ñu ca dolli lu ñu ca dolli ñun ñoo ko ca dolli ngir ak rafetal ngir ak rafetal kon su yàlla defee kon nag bu yàlla defee tey mu bawoo fi tey mu bawoo fi ci anam boo xam ne ci anam boo xam ne sonnul sonnul sonlewul sonlewul kenn ku mu ci yéen yëgul tëraayam yëgul tëraayam ñi nga xam ne ñoo sës moom ñi sës ak moom daal janoo këram yi janoo këram yëguñu tëraayam yëguñu tëraayam amuñu ci ludul amuñu ay doomam ñii ba na ba naaj sax na ba naaj a yëg ni ma soog a yëg yaram dafa tàng. 3 heures 3 heures fekk na mu dellu ci borom. fekk na mu dellu ci borom. di wax ci baati alxuraan. di wax ci baati alxuraan yi mu daan wax. di ko wax ak Baye Talla doomam. di ko wax Baye Talla doomam. ak Mouhamed Aline Gueye ak Mouhamed Aline Gueye. xelam demul xelam demul. gëlëmul gëlëmul. jaxasoowul jaxasoowul. lu lay metti lu lay metti mu ni dara mu ni dara. ba wuy ji borom ba wuy ji borom. kon kon nag li alxuraan di wax. li alxuraan di wax. inna lazina. inna lazina. qaalu qaalu rabbuna allah rabbuna allah ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل تتنزل عليهم الملائكه عليهم الملائكه لا تخافوا لا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وابشروا وابشروا بالجنه التي بالجنه التي كنتم توحدون كنتم توحدون جامي يالا ييغا خا جامي يالا ييغا خا دانيو تخاو دانيو تخاو جايانتيك يالا جايانتيك يالا ني يالا ياي سونو بروم ني يالا ياي سونو بروم تي يامونو سي سين كادو غوغو تي يامونو سين كادو دنج كو جيف دنج كو جيف با يالا سيدكو با يالا سيدكو بونو تولي سي ديم بونو تولي سي ديم يالا اندي ملائكه يالا اندي ملائكه يرماندي ني لا بول تيت لا بول بول jàpp bul jàpp yàllaa ngi lay tertu yàllaa ngi lay tertu ak mbégte moo xam ne ak mbégte moo xam ne aljana la aljana la yoo xam ne fa ngay sax yoo xam ne fa ngay sax kon loolu yàlla defal na ko kon loolu yàlla defal na ko yàlla na ko muurloo yàlla na ko muurloo ci biir aljana ci biir aljana kooku nag kooku nag moo fi bawoo moo fi bawoo doon seen mag doon seen mag doon seen xarit doon seen xarit doon seen wéttal doon seen wéttal ci fànn yëpp ci fànn yëpp ngeen bokki daara ngeen bokki daara bokki bokki tool bokki tool bokk ay kër bokki kër bokki jotaay bokki jotaay lépp di rafet lépp di rafet ba jëmmi yàlla tey mu bawoo fi la leen war ci moom ngeen def ko kon wàcc ngeen kon wàcc ngeen mooy jóg mooy jóg jëkkoo génn fajar fajar daanaka gi mu ko def daanaka gi mu ko def ak ak fi ñu la ko waxee ak fi ñu la ko waxee ak fi nga agsee ci kër gi ak fi nga agsee ci kër gi mën nañ ni waaj sax xaju mën na ni waaj xaju kon ñeewante njaboot kon ñeewante njaboot ak yëg ni sa maga dem ak yëg ni sa maga dem looloo tax nga defee ko loolu tax nga defee nii njaboot gi itam njaboot gi it wan la ni wan la ni yëg nañ loolu yëg nañ loolu ci zaahir ci zaahir ak ci baatin ak ci baatin boobaak léegi boobaak léegi fa ñu ne ca kër ga fa ñu ne ca kër ga wóor la la ni wóor la la ni yow lañ fa toogal yow lañ fa toogal gan gu ñëw gan gu ñëw jaaleel jaaleel sa mag jaaleel sa mag ñoom ñu delloo leen la ñoom ñu delloo ko loola rek leen fa boole loola leen fa Gabon nda ca bis ba nda ca bis ba lañ amoon yéene lañ amoon yéene ñëw fii ñëw fii delloo la njaal delloo la njaal xamal la ni xamal la ni yow sama nga dem yow sama nga dem ñoom ñàkkuñu bàyyi ñoom ñàkkuñu bàyyi ñàkkuñu sëriñ ñàkkuñu sëriñ loolu rek leen andi looloo leen andi wax la itam ni wax la tamit ni li nga xam ni li nga xam ni war may seexu canabal war may seexu canabal ku fi yàlla teg ku fi yàlla teg yaa ko yilif yaa ko yilif bu dee baatin bi bu dee baatin mooy pas-pasi xol yi mooy pas-pasi xol yi ñun ñëpp di askanu seexu canabal ñun ñëpp di askanu seexu canabal mooy ñi nga xam ni say rakk lañ mooy ñi nga xam say rakk lañ ñi nga xam ni say doom lañ ñi nga xam ni say doom lañ ñi nga xam ni muxaddam yi lañ ñi nga xam ni muxaddam yi taalibe yi ak taalibe yi ku ci ne ku ci ne du wut du am seexu canaba du warale am seexu canaba ak kenn te du ko jaawale ñoom ñëpp ñu jàpp tey ñoom yaay seexu canaba te nangul nañ la waaye di ñaan nag boo xam ne réussite boo xam ne seexu canaba mu fi mu fi musa jaar ahmad ndak ba sa jotaay bi mus na koo am mus na koo am bu dee benn bu dee ko yàlla fulal yàlla la ko yàlla fulal muy junni ba kenn mën koo bañ a a bari ci bari ak ngëneel ak te wér tal fekke ko wërsëg fekke ko ijaaba fekke ko jaamu yàlla gu nangu fekke ko jaamu yàlla gu nangu fekke ko set wicc ak bàkkaar fekke ko barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu wax ni war ma jooju ñu wax ni war ma jooju bu dee kër gi bu dee kër gi wala jumaa ji wala jumaa ji wala penc mi wala penc mi wala armée wala armée wala tool yi wala tool yi wala lu ñuy tudd seexu wala lu ñuy tudd seexu canaf seen baay yoroon ko seen baay yoroon ko bis ni ki tey bis ni ki tey yëbbal nañ la lépp yëbbal nañ la lépp basang sax basang sax nee na leen bu mu fi jóg nee na leen bu mu fi jóg ñu ngi sant nag ñu ngi sant nag ñu nu àndal ñu nu àndal di sëñ Omar si di alaaji Omar si sëñ Cheikh Tidiane di sëñ Cheikh Tidiane mu bàyyi Moduli mu bàyyi Moduli sëñ Mahamadi Seck sëriñ Mahamadi Seck mu bàyyi Boubou mu bàyyi Boubou sëñ eh, Ibrahima Seck sëriñ Ibrahima Seck mu sëriñ eh, Talaxaas mu sëriñ Talaxaas sëñ Souleymane Seck sëriñ Souleymane Seck borom xaas borom xaas El Hadji bu ma toppee lim bu ma toppee lim dinañ fi gën a ak ñenu àndal ñëpp Mor Gueye El Hadji Mor Gueye sëñ Ndiamé Gueye El Hadji Ndiamé Gueye bàyyi kenn bëgguma bàyyi na ko sëriñ Cheikh mu bàyyi Moduli ak ñëpp waaw waaw ak ñëpp rek. ndeysaan ak ñëpp rek. waaye ñu ñëwee nag. waaye ñu ñëwee nag. ak xol bu tàlli ak xol bu tàlli. ak kanam gu leer kanam gu leer. ngir ci ki ñu jëm. ngir ci ku ñu jëm. xam nañ ko démb. xam nañ ko démb tey soog a ñëw. tey soog a ñëw te jàmm rek lañ seet. te jàmm rek lañ seet lu jàng ci wax ji nag. lu jàng ci wax man maa ngi koy jégalu. maa ngi jégalu. man nag man nag personnellement. personnellement doon seen doom. doon seen doom. doon seen lépp. doon seen lépp doon seen taalib. doon seen taalib. bàyyi Cheikh wóolu woon. bàyyi Cheikh wóolu woon. ci alal jum leen yoraloon. ci alal jum leen yoraloon. may ndoom doom su tuuti. may ndoom su tuuti. maguma fi maguma fi ëpp ma fi xam-xam ëpp ma fi xam-xam ëpp ma fi xalaat xalaat mu joxañ ma mu joxañ ma may def may def di dindi di dindi lu ma mës a def lu ma mës a def njuumte ne ca njuumte ne ca wala ma tooñ ca wala ma tooñ ca kenn maa ngi toog fii maa ngi toog fii di ko tuubal di ko tuubal ñëpp ci zahir ci zahir ak ci baatin ak ci baatin dellu nekk di doom dellu nekk di doom alal joo xam ne alal joo xam ne nag bu bu la ca indi sa baay la ca indi sa baay ba muy seexu canab ba muy seexu canab bu la ca yàlla yóbbu bu la ca yàlla yóbbu ngay seexu canab ngay seexu canab loo ca defar loo ca defar السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرحمن الرحيم. لا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا عين لنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم العكيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما صباح ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Serigne Mouhamadou Seck ne sa wayjur Baye Cheikhou Canaba Baye Serigne Abdourahim Seck mu ngi lay wax wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu nee na yow ak sa rakk yu baax yi nga àndal ak sa mag yu baax yi nga àndal ak sa wëllëre wayjur yi nga àndal ngeen ànd tey jii def délégation bu rafet bii ñëw sukk ci kanamam jaayale ko magam ju baax ja muy bàyyi Cheikh Ahmad Tidiane nee mu ngi leen di sant ci loolu bu baax mu ngi leen di gërëm ci loolu bu baax mu ngi ciy am mbégte ak kontante nee mu ngi sant itam ki nga jëloon sa kàddu jaarale ko ci moom muy sëriñ Baye Diop Seck mu yëkkati kàddu yoo xam ni kàddu yu rafet la kàddu yu daw yaram kàddu yu am maanaa tabaarakallaahu di sant ñi ngeen àndal ñëpp ku mel ni seen mag seen xarit Seydina Omar Sy di kenn ci kër gi di sant wala di nuyu sa mag yu baax yi la gunge sëñ Modou ñu toog jotaay bii muy jotaay bu nga xam ni lépp jotaay bi saayir bi batin bi jëmm ju tedd ji moko mom ngeen andil ko njaal mu rafet kaddu yu rafet rafet motax momit neena it njaal mu rafet mi nga xamni andi nga ko seigne Modou ak njaboot gi nga andal seigne Modou sa baay mu la koy nangul bu baax neena mu la koy delo mu ngi ñaan ci yàlla suñu borom subhanahu wa taala ki nga xam ni moo waral jataay bii di bàyyi Cheikh Ahmad Tidiane yàlla na yàlla dugal ko àjjanal firdawsi yàlla na yàlla yeesal yërmandeem ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na yàlla gisale ko baayam yu baax ya gisale ko ak magam yu baax ya ko ak maamam ju tedd ja muy maam Amari Ndak Seck radiyallahu anhu yal na ko yàlla def muy ganub alquranul karim bàkke woon nañu ko ko ñi fi ñëw ci dëj bi ba léegi képp ku toog fii seede danga koy seede ci alquran ne loolu daal cërëb la woon ne cër boobu bépp cër bu nit di cëru cëru ci alxuraan moo gën a rëy te loolu yàlla defal na ko loolu yàlla nay muuroom ci barkeen taala muhammad sallallahu alayhi wa sallam sunu wayjur sëñ Abdourahim nee na nangul na leen seenum njaal waaye nee na moom day yéen ñàkku baay de ñàkku sëriñ ñàkku leen xarit ñàkku leen wéttal ndax moom mii moo ñàkk yéen su ngeen gestoo di ngeen gis jëmmam ji moom su gestoo dootul gis magam dootul gis sëriñam te tabaarakallaahu barki démb rek di suñu wayjur génne àddina muy bàyyi sëriñ maxtaar moom mi da koo tiim yëkkati seede yu daw yaram mu ni 1946 la sama baay génn àddina fekk jóge na fii dem Canaba Gosaas yóbbaale baay Seydina Ousmane Seck ba mu demee fekk ko foofa ba muy ñibbisi mu boole leen ñoom ñaar andi leen fii booba daa amoon yéene boole leen ñoom ñaar jox leen sëñ alfa te Canaba Kayor ñaar fukki fan ak benn lañ dafa góor gu mag fii ci biir kër gi yàlla ñëw ak coobereem sëñ Ibrahima Seck ñëw jëlaat Baye Abdourahim yóbbu ca nama gu saas loola muy am ceebo bañ demee ba toll ca lool li sëñ Ibrahima Seck jëlaat Baye Abdourahim jëlaat Baye Ousmane yóbbu leen mbos ba mu àggee mu séddale leen yëkkati Baye Abdourahim teg ci loxol Baye Cheikh Ahmad Tidiane Khalifa yëkkati Baye Ousmane teg ci loxol Baye Makhtar ñu nekk seeni mag di leen jàngal alquran kere kàddu googu la Baye Abdou Seede ci Baye Cheikh te wax na ko fu ne ñépp dégg ko ne ku nangu woon ni Baye Cheikh sëriñam la daanañu toog jotaay yoo xam ni soo ko fekkee da ngay xam ne ñii fa ñu ànd yàgg na man de fekk naa si jotaay yu bari am na jotaay boo xam ni ci taatu bét ne gii la woon Baye Cheikh ni jotaay bii sama mu yalwaan meenam Abdu mi rekk ci mën a wax dara ne loola kóllëre la boo xam daa jaar ci seeni diggante yàlla dogal na loola dara mus cee dañ muy ak rafetal mu xam ni kii magama mu xam ni moom it kii rakkama loolu lañ mës a dund ba yàlla dogal keroog bi bàyyi Ousseynou Xaar génne àddina bàyyi Abdourahim dani sama sëriñ mooy xalifa bi keroog moo jëkk a jël kurusam jaayante ak bàyyi Cheikh Ahmad Tidiane bàyyi njaga soog caa topp ba léegi la mu defoon ginnaaw bi dara weddiwu ko ba ni yàlla ñëwee ci ab dogalam bàyyi seex wàcc moom mi mu wutu ko ne kon jaar-jaar yi lépp rafet na tabaarakallaahu nee na yéen daal ñàkku leen sëñ Modou moom mi moo ñàkk ne liggéey boobu nga xam ne magam jee ko doon def wuutu woon ci ay magam wuutu woon ci ay baayam ba tey yàlla andi ko teg ko fii mu wuutu magam yooyu ngeen ñëw jaayante ak moom ne mu ngi leen koy nangul de keroog bi ñu tiimee Baye Cheikh ci buntu jumaa ji kàddu gi njëkk a génn ci Baye Abdourahim Baye Assane Seck mais moo ko jottali wax ca mbooloo ma ni sëñ Abdourahim Seck nee na jéggal na mbindee fi yàlla yépp jéggal na mbindee fi yàlla yépp jéggal na mbindee fi yàlla yépp te kàddu googu ba fii nu toog daf koy baamtu lu baree bari nit nag lu muy wax di ko baamtu loola dëgg la ci moom danoo wax ni nit du weddi boppam soo waxee kàddu googu lay ñëw lépp daa war a dëppoo ak loola. moom nag nit la koo xam ni ñi mu wutu fii ëpp ñu koy yéene ju rafet. gënuñu ko bëgg itam. ko bëgg itam. njabootu seexu canaba. maam Amary Ndaak set ndax wuutu maam Amary Ndaak yombul njabootam daa yaatu maqaamaam rëy diis gann ne ku ko yanu yanu ngalu diis waaye mu ngi ñaan ci yàlla mu ngi ñaan ci yàlla moom mi nga xam ne lépp lu woyof moo ko woyofal lépp lu àgg moo ko àggal lépp lu baax moo ko baaxal ne mu ngi ñaan ci yàlla moomu yan bii nu ko yan rafet rafet yi magam yi amoon yàlla ko yàlla dimbali ba mu am ay rafet rafet yu faw xa yooya ndax yéeneem yegg na foofa xolam bu rafet yegg na foofa ne mu ngi ñaan ci yàlla loolu yëpp yàlla na ko yàlla matal si barke yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne moom day li Baye fas yéene mooy tàllal ñëpp loxo uuf ñëpp def ñëpp njaboot ndax sees bii mu toog képp ku ci toog ñëpp sa njaboot lañu Baye Abdourahim daal loola yitteem ba léegi ci bëccëg fu ñu toog loolu rek lay wax man daal li ma bëgg mooy ma uuf njabootu Amari Ndaak gépp li ma bëgg ma làmb leen mbalaan moo xam ni kenn du ñemee dugal sa loxo ci mbalaan mi di ci def lu deful loolu ca ngoon ba léegi Baye Abdourahim mu ngi koy wax nee ku xam Baye Abdourahim ah du wax lu mu gëmul de. noonu la ko yàlla bindee la ko yàlla bindee. boo gisee canaba yëpp ñime soo gisee canaba yëpp ñime ko. canaba yëpp bëgg ko. canaba yëpp bëgg ko. yëpp am ci moom yaakaar. dafa am melokaan woo xam ne. ñëpp ko ko nangul. léeg-léeg dañuy waxtaan. léeg ñu waxtaan. ñu ne ko defeel nii. léeg mu ree. ni xalqulaahi laa yuxayiru. bindu suñu borom. nee du soppi ko de. nga xam ni kon kii ni mel tabiaam la jikkoom la noonu la ko yàlla melal loolu dalal na sunu xel baay Abdu nee na na ngeen dalal seen xel na ngeen xam ni nu ngeen doone njabootam di ngeen fekk nu ko raw foofu mu doone ko seen kilifa ne bu leen jàq bu leen tiit bàyyi Cheikh jugu fi moom mii la bàyyi Cheikh doon def ci yéen nekk seen kilifa di leen digal di leen tere loolu rek la fas yéene ne kon maa ngi tënk foofu kàddu yi ne su kàddu yi rafetee sëriñ bi daal bëggoon na mu gën a rafet ne su melul na mu war a mel na ngeen xam ni nga sii toog moo mënta jotal waaye nee na daal yal na yàlla may leen jàmm nee lim leen di dénk nag sëriñ Modou yow la yàlla teg nga nekk ca bopp njaboot ko di xalifa Baye Cheikh Ahmad Tidiane ne am na si yow yaakaar yow sañ Modou sa melokaan ñëpp la ñime ne mu lay dégg nga góorgóorlu ndax wuutu sa baay yomb na yombul waaye kuñ ni maam Momar Talla Seck bi muy toog ci photo yu maam Amari Ndak 27 ans 28 ans la 27 ans 28 ans. mu def liggéey bi mu def. mu def liggéey bi mu def. war nañoo xam ni. nit su amee jom. am ngor man naa am lu ne. ne nga gën a góor góorgóorlu. njaboot gi li mu leen di dénk. sëñ Modou mooy Baye Cheikh Tidiane. lépp lu njaboot gi soxla. mbaa ñu bëgg ko. nan ñëw wax ak yow. nee na yow mi seen mag nag ibbil na la ay buntam. lépp lu njaboot gi wax nga ñëw àggee ko ko lay xalaatam mbaa ñaanam mbaa taxawaay loola dana ca taxaw nee na ngeen góorgóorlu yéen ñëpp ngeen ànd nekk benn gën a nekk benn nekk benn gi am na sëñ Moodu ngay seen kilifa nee nga yërëm leen ñoom it ñu nekk njaboot ngeen àndandoo nekk benn. lépp rafet nee na loolu loolu mooy yitteem mooy bëgg-bëggam képp koo xam ni yaa ngi jël sa nopp dégg ko moom mii mu lay digal ngay def mu lay tere ngay ba nee loolu rek la lay wax ci lool la nekk mooy bëgg-bëggam foofa rek la jëm jëmul faneen yilif ñëpp yërëm ñëpp di dimbali ñëpp suturaal ñëpp loolay bëgg-bëggam asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ne jëluma genn kàddu nag di wax waaye jël naa nag xolub ñaan ne Baye Diop mii bi mu leen waxalee ba eggal bi mu leen waxalee ba eggal sañoon naa sañoon naa te du di ngeen ci d'accord te da ngeen ci d'accord ma ni ko waxal maniko baye waxal ma kaddu yi ci Mamadou tek kaddu yi ci sëñ mohammed sek tek kon man dootuma wax ne kon dootuma wax fofu dara waye sëñ Cheikh waye sëñ Cheikh sunu mbir lepp day ben sunu mbir lepp day ben nit bu la dalale jang nit bu la dalale jang ba nga exi hajji ba nga exi hajji am nga lo xam ca am nga loo xam ci moom. barki démb. nee barki démb. laa fekk fii soxna laa fekk fii soxna Mbenooy. ñu lal ak basan. ñu lal ak basan. sotti ci saakuy kemb. sotti ci saakuy kemb. man maa jël layaan nga. maa jël layaan nga. tibb tibb. di lay di lay. di lay di lay. di lay di lay. sëñ ne sama kanam. di lay waaw. loolee ne loolee. su fekkoon dara daa ne suñu diggante. su dara tiga suñu nih loolee du ma ko def ne loolu du ma ko def. mbenooy am na doomam ju ñëw. mbenooy am na doomam ju ñëw. daa ree. daa ree. ma ne ko dangaa defee ni mënumaa layaan. ma ne ko dangaa defee ni mënumaa layaan. ak bay dem. ma wax ak bay dem. mbenooy ne bëreet. mbenooy ne bëreet. laaj ab ah, am mbuus. laaj am mbuus. daal di wuti kemb gi ma daw téye ko. wuti kemb gi ma daw ko. ma ko ma ko. xam naa la sekk nga sant. xam naa la sekk nga sant. bàyyil rek ma sàkkal sama bopp. bàyyil rek ma sàkkal sama bopp. la ma sàkkaloon sama bopp. la ma sàkkaloon sama bopp. di ca naan ataaya. di ca naan ataaya. wóor na yàlla ni jeexul. wóor na yàlla ni jeexul. ma nga nee ca néeg ma nga nee ca néeg ba. waaye xam nga ni. waaye xam nga ni. nit koo xam ni kii. nit koo xam ni nii. lu rafetul daa jaar seen diggante. lu rafetul daa jaar seen diggante. du du tiim. Euh, saaku kembam sotti ko. du tiim saaku kembam sotti ko. nga dem di ca tibb. nga dem di ca tibb di la yaan kon loolu leen di wax ne dara nekkul. dama leen di wax rek ni sëñ Modou dara nekkul. loolu daal loolu daal. ndokk yàlla. ndokk yàlla. bi nga xamante ni. bi nga xamante ni. sama kàddu laataa la daanu. sama kàddu laataa daanu. nee nga ma ma ma fekke naa ko. nee nga fekke naa ko. kon nag mbokk yi. nee na boobu maa ngi taxaw ci pegg bi di la xool. mu ngi leen di gërëm. mu ngi leen di gërëm. mu ngi leen di sant. mu ngi leen di sant. mu ngi leen di ñaanal. di ñaanal. di maa ngi sàkku ci yéen. ngeen dolli nu ñaan. noo jàppale. gën noo jàppale. gën noo xalaatal. gën noo xalaatal. gën noo soññi. te kenn ku ci ne. te kenn ku ci ne. lenn loo gis. lenn loo gis. te muy defar. te muy defar. ñëwal waxtaan ceeg man. waaye ñëwal waxtaan ceeg man. loo gis. loo gis. te muy ayibal. te muy ayibal. ñëwal waxtaan ceeg man. ñëwal waxtaan man. ma daw ca la ma ca man. ma daw ca la ma ca man. آمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمين آمين آمين يا رب العالمين آمين اللهم يا سارهم آمين يا رب العالمين أن يتوانني من مقام قربانية بجاء سلسلة تجانية من شاء اللهم عليها تجاني الحس والصلاة والسلام العسر في الإنسان وأبي الرحمن اللهم قل في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير آمين وأسألك اليسرى والمهمة في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير يا لا ينت وبرك لمن وبرك الشيخ نبي الهدى في نومه وانتباهه ألوى ألبه الله akbar مام ahmadu ndak moy sunu serigne yalla nako jox muy sunu njariñ nañ ko japp nañ ko gëm nañ ko bëgg تفوز بالجاه عند إلهه